aynama takunu yaati bikumullah yàlla mooy leen indi ñëpp daw leen rek njëkkante leen njëkkalante nag boobu beneen aaya tuddee na ko daw firaar fa firru ilallahi fa firru ilallahi waaw daw leen waqit kuy daw am nga looy daw wala am na fooy daw jëm lépp lu war a dox sa diggante ak yàlla moom moom ngay daw jëm fan ilallahi ilaa moom amul ci arab ñépp ko xam ilaa mooy vers jëm tuboot jëm yaa ngi jëm nag ci allah ah kon de di nga doy wax da nga bëri foo jëm de yàlla ne foo nekk rek fu ngeen nekk maa ngi yéen a nekk kon booy daw fooy jëm foofu nag la am kilifa baaxee ma jege Cheikh Ibrahim Niass al muslim al maliki al ashari tijaani ni ko bàyyi kuy daw foo jëm mu ne nga seet nga seet alquran ak sunna nga daw jëm ci i aay yi dañoo bëri de bu dee système nag mu ne xanaa nga seet ku mat ci sa jamono nga daw jëm ci moom mën na fekk nag mu pare ci yar boppam ndax bu lum amut du la ko mën a jox de ku xiif am benn mburu am fukk ñu war a dundal booy uti mburu demal feneen xeeboo ko waaye dangaa pratique fafiru ilallahi kon nag allahu boo cee dem moom moo lay guidé is tastabiqul xayraati fafiru ilallahi waaye aay bi ne inni lakum minhu nadirun mubin ah yàlla mooy digle am ku ne inni yooyu ci dafa gaaw di inni boobu yonent mooy lay wax ak yow inni man mii xam nga ana mooy man mais inni day feddali man lakum minhu jiital laam gi day feddali phrase bi nazirun mubin maa leen di wax affaire bi da ngeen di jaaxle fu ngeen jëm kaay leen ci man moo tax ba ëpp ba Seydina Omar ci curiosité intellectuelle romb yahood yi ci Madinatu Munawwara ñuy jàng tawraat je suis sûr que booba tawraat jaxasoogut mu am lu mu ca sotti ñëw di ko liir yonent nag moom daf daan toppatoo ñi ko wat ci luñ ne ñu ne kaana yasalu naasa ani naasi yonent il s'informer sur les gens ndax ku bëgg a jubal nit war ngaa xam lu mu xëyee mu ne quoi damaa romboon yahood yi rek ñooy jàng ci tawraat mu neex ma ma sotti ci yonent ne ko xii atatahawakuuna alayha wa ana bayna sahraanikum baat baat bi sax da nga yëg ne mer na da ngay di ñàkk fayda xaar te jógaguma fi sax tawre yow xanaa xamoo ne Muusaa ibnu Imraan mi ñu wàccoon ci moom tawraat su fi nekkoon tey range suma gannaaw rek wala du baax ci moom Isa ibn Maryam mi ñu wàcce woon injil ci moom noonu yéen yéenay suma wàll ci xeet yi may seen wàll ci yonent yi ma ne ñu déggañe nañ xam moom laa waxoon mbokk yi ci benn daje may leen mun naa waat ci yàlla ne taalibe Baay Ñas yi nekkoon booba ca institut islamique may leen waat mun naa waat ci yàlla ne mun nañ koo tiitaroo moom est-ce que moom mën nañoo tiitaroo voilà la question waxu bokk nag pour kenn lay waaye dama bëgg rek ku ne takkaayu laxasu pour que waxtu wuñ waxtu wu tiitaroo waxtu wuñ tiitaroo mu mën a tiitaru moom te eh wallah teel Muhammad ñu daw jëm ci moom kon ndax moom moom la yàlla ne lu leen yonent jox fa xusuuhu maanaam maanaam fantahoo moom mu ne bàyyiwuma dara dara dara lu leen di jëriñ lu may wax naa leen ko bàyyiwuma dara lu leen di lor lu may wax naa leen ko maanaam wàcc naa wàcc naa comme wàcc na nag borom saaba yi ñoo njëkk naan ba màndi monte ay robinet taabiin a ñëw ndekete mbir bu yaatoo bu la neexee bu la naqaree nag bu yaatoo boo administré fukki nit baaxal leen moo gën a yomb téeméer junne million xam nga nu cercle bi gën a yaatoo rek foog mu am benn benn boo xam ne dañoo yéex a ñëw te laajuñ gaañ yi lu ñu fi nekkee woon ba léegi mi ngi am moom la Seydina Omar na woon hé man de buñ demee ba génération am ci jullit ñi ñoo xam ne xamuñ jaahiliya su boobaa du baax de jaahiliya kañ ñàkk koo xam moo gën xanaa mu ne période bañ nekkoon ba yàlla may ñu lislaam bu amee ci ñun ñu ñëw te xamuñ ko du baax parce que foog nga xam la nga génne woon pour nga moytandiku dellu ca booba nag la yàlla yankii war gis nga alxuraan ji c'est dommage que ki may tontu nekku fi il faut nga naaw juróom-ñaari waxtu door a egg fa mu nekk mais sant rien alors booba la yàlla def alxuraan jii nga xam ne dajale wuñ ko woon ci benn téere yàlla def saaba yi dajale ko denc ko ñu dem ba jëmmi jamono ñu gis ne war naa tasaaroo Seydina Ousmane def ci juróom-ñaari nusxa yónnee ko ci njënd yi alxuraan ji amutoon tomb ak maska ak yépp ñu toppatoo ko ba ñii ñëw ëllëg mu gën a yomb ci ñoom atte yi ñu daan jël gauche droite te loolu moo jaadu ñu xam ne buñ ko codifié wul du baax ñu commencé am ay fuqahaaw am ñuy xuraaw ba am sax ñoo xam ne ñoom xëccoo nguur gi ak rayante bi dafay sàppe ñu beru ñoom fexe ba liñ jëlee ñoom liñ ci xam ñoom waxuñ lu ñeneen xam de luñ ci xam ñoom dañ ko garder ba ku ko bëgg ñu jox leen ko te du doon waxi kese wax la ak jëf ñoo ñëw zuhaad yi ci ñoom nag li ñuy wax sufiyanke yi ci lañ juddu lépp li ñuy def ak di ko wax ba léegi kuréel yi ba ñun ñu mën a toog fii naan tijaani yu na c'est-à-dire du dara lu may nit koo xam ne gis nga ne yoon wii am na ay pax mais am na fu jub boo dee ba ci ko am fax boo fa jàddee am na ay bouquet ki gaynde mi fii boo fi jaaree am na ay fleur boo buggee mar ndox mi am na place sàngam boo ko buggee yóbbaale am na ay ay bidon place sàngam mu jaar fa dem ba ñëw xam ko am ndigal buy demati duñ ko laaj foo jëm ñu fexe ba ombat nit ñi kon nag fafiru ilallaay fexe leen ba gox boo nekk la nga bëgg ba xam ne am na valeur ku la ca tane dimbalanteel ak moom la nga ragal ba di ko daw ku la ca mën a musal dimbalante ak moom buñ demoon nag ba nga nekk foo gisul kenn yàlla nga fa aarifoon yi nee nañu ku dëkkoon ci ab il bu kenn nekkut waaye xam nga salaatu ala nabi waxtu wu ne ngay julli ci yonent bi rek lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla dina la xamal li nga doon séentu boo nekkee ab sëriñ pour mu xamal la kon nag fa firru ilallahi bu ngeen nekkee biir Afrique ak bu ngeen génnee nekk diaspora amul fu nit mënta baaxee mais am na fu mu gën a yombee du fi ñu koy teg nag waxuma fi jàkk yi bëri non fi jàkk yi tuuti foofu la gën a yombee ndax boo rëccee ba julli jumaa rek da nga yëg ci sa bopp ne def nga def nga lu rëy waaw bu ñu demee nag bay wasifa mais wasifa rendez-vous quotidien avec rasulullahi la léegi su fekkoon ne zahir dafay baatin dëkk bu ne kenn du fa xaj waaw boo defee juróom-ñaari peru jawharatul kamal bala ngaa pare yàlla mi nga xam ne moo mooy yàlla minal ësët ilal ëbët teewal na fa yonent bi te du doon moom kenn bu ngeen toogoon di juróom-ñaari nit itam yonentang fi ak ñeent gis nga ko sa affaire la gisoo ko sa affaire la waaye yàlla mi def ci xelu ingénieur bi ke ke xelu architecte bi building ba la team présidence ci Sénégal te kenn gisu ko mu génn ko ci kay te ma nga fa ba tey bu ko neexee mu génnaat yàlla fiy teewal yonent bi loo askan keneen mu jafe loo ko askan moom yàlla mu yomb benn aarif nee na ah ma de ki fexe ba may gis ci benn dogitu Grèce fekk asamaan dara teewul sama bët bi lu ma wax gëm naa ko jël la jëlaatu fafirru ilallahi suñ firaaru bi nag ndekkee dafa yàgg dañu doon fàttali rek ndaxte yàlla wax na ci alxuraan ne mës naa moom yàlla mës naa teewal ci kattanam bépp mbindeef mu naa bind ñu amee forme atome zarr mu dégloo leen ji mun leen a waxloo laaj leen laaj gi alastu bi rabbikum jarul muy wax ci kaw sax buy wax ñëpp dégg mu ne qaalu bala qaalu shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin képp ku naayoo nekk te naayoo gëm na nga balaa en kañ yaay suñu borom bi jamono yi dox ñëwoon ci doomu aadama bu njëkk baag ak ki mujj juddu tey ak ñëpp ku ne da ngay jouer ce rôle balaa wax nga balaa balaa mooy en am si mooy tubaab bi wax si nangu nañ fitros boobu nekk ci nit nag depuis ëzël ci ahdu alastu bi rabbikum ci alamu zarri mooy liggéeyu sëriñ sépp ak kuy jubanti fàttali la ko rek la oto gis nga dóor beeg mer bi jarul da nga koy fàttali rek ndax li nga koy fàttali dafa di maanaam disque boo xam ne mi ngi tourné te tegagoo ci loolu phonographe yi meloon booy teg rek muy wax bindoo njub da nga fàttali rek bindu njub yàlla rek ko moom moo tax yonent ñu ne ko innaka laa tahdi man ahbabta mooy bind njub ca xol ba waaye nag hidayatul irshad ak fàttali ak jàngale ankañ moo ko bu dàq ñëpp am na sax ndongo yi ñu ko ci mën benn hidaaya rek nag moom la yàlla nanguwaat aussi mooy bi mu jox mbindeef yànn yi ganaar du toog mukk fi doom fi muy fi muy bëttee nen bi ndax dafay étouffer nen bi xam na ko mu des nag benn hidaaya boobu moom mooy hidaayatuhum fil janna nga xam fu sa adresse su kër nekk problème la de xaw ma seetlu ngeen ko mu de ah dama xam ne bergamu gii rek buñ tëboon ne dugg leen ku ne dem sa kër foog nga laaj te wala nga def dara ci sa oto mu wax la fooy jëm bés bañ ci nag ku dugg rek xam nga sa kër ci aljanna Chicago rek nooy xamee sa kër yahdihim rabbuhum bi imanihim la alquran wax mu ne ñi jihaad ba shahid yàlla daf leen di gërëm yóbbu leen yahdihim rabbuhum bi imanihim mooy ci bés penc dañ am busol boo xam ne ku ne xam nga fu sa kër nekk parce que boo ne carax buntu aljanna réer jeex na mer jeex na ñàkk xam jeex na réer yàlla jeex na mer jeex na dépense jeex na oui angañ xam nga ma l'islam zaahir rek baatin nii la ñuy def rek yonent yàlla Muhammad dafa toog benn kaw kaw ñëw ne ko ya Muhammadu innani la uxsinu dandanataka wala dandanata Muaad tuumeen bu bees la jànguma dara ni ma dégg yaag Maas ibnu Jabal mii ngeen di mun muni rek man ñaan yi ngeen def munu allahumma ya rabbi rabbana man loolu xaw ma ko yonent ko loo xam nag loo mën man dama naan yàlla yàlla nag may aljanna musul ma ci safara yonent ne ko xaw la daaka du dandin loolu la ñuy mun muni si aljanna c'est important ndax li ko niru yëpp mooy yi ngay kër kër yi te nag du moom yi ko niru yëpp moo la jaral lu ne bu dee taar bu dee am-am bu dee bànneex bu dee kat lépp lu niru aljanna rek ci ngay sonn te nag wa utu bihi mutashabihan la alquran wax palaat bu ñëw rek nga ne eh nen a ngi fekk du nen moo dàq nen kuma mbaxal fekk moo dàq mbaxal wa utu bihi mutashabihan palaat yëpp niroo yaa nga xamoon benn du ci moom parce que say faculté aljanna maanaam faculté àddina mënuñu dékku faculté maanaam la mu soxla ci aljanna parce que mooy kër gi nga xam ne li ñuy moytu ko yépp pour bañ a jàdd ak pour bañ a bokkaale yépp aljanna nag fekk bañ fa dajee nag yàlla dafa ñuy riis ñu egg nag ci benn maqaama boo xam ne mustawan la ñëpp jaar yi mu ne xaar leen nag léegi ma ma mureeku nag nekkatul shuhud nekkatul tëjëli nekk murees moo xam nu mu koy defee mu yonentu ne di ngeen xool seen borom ci àllaaxira te kenn du ci buuxante comme bu ngeen doon teen weer wi xam nga amul teen weer amul buuxante bi ndax li ngay xool nekkul fii fii la nekk mooy kon nag ñëpp dañuy fàttali nañ fexe ba muy fàtte gis nga zikru nag mi ñu doon wasifa baatab zikru mooy fàttaliku mooy tudd xool nga di fi ni ni mel ñu bari biñ ne fa firu yàllaay am na ñu jëm ci yàlla kat mais nag ci façon beneen la ki dafa xiif nga layal ko yaa ngi jëm ci yàlla ki rafle nga odd ko yaa ngi jëm ci yàlla ki gàgg nga gàgganti ko yaa ngi jëm ci yàlla kii sonn nga dimbale ko yaa ngi jëm ci yàlla kii feebar nga faj ko yaa ngi jëm ci yàlla kii feebar mënoo ko faj mais nga dimbale ko ca ka koy faj yaa ngi jëm ci yàlla kii amul métier yonent nee na boo ko jàngalee ba mën a liggéeyal boppam rek am nga garanti aljanna dem ci yàlla dem ci yàlla waaye nag boo nee nag ba ba zikr toog ak yonent bi nag te xam nga dañoo yemal yëf yi foofu ndax wax dafa am fu muy yem waaye ki toog bi ma benn waaye ñëwee ci ndakaaru ne daf may jéem a ciit noonu naan ma man daal seen affaire bi daal teew gee ma ci jaaxal man ku ne dafa wax naan seen affaire bi waaw ndokk yàlla suñu affaire bi tarix bi lay wax man teew teew gee ma ci jaaxal ma ne ko teew gan maa xam li mu wax kat mais foog moo koy wax teew ban mu ne ma de lii ngay affaire teew yooyu ak ak malaan moomu yooyu ma ne ko malaan man foog mu wax ko ma ne ko kaay ma wax ma ne ko wasifa ngay wax ak malaan mu weex ak teew ak yoon ci Muhammad loolu nga ma ne ko yow nag man mënuguma wax ak yow ndax man su ma lalee wasifa bay wasifa wax dëgg yàlla ka fay teew yónent yàlla Muhammad moo gën ñëpp mais nag kooku dépassé na ko mun ma kat lu ko yàlla nee na ma ana jaliisu man zakarani ku may tudd rek maa ngi yow a toog ma ne ko nag man ma xamaale ci ne fu yàlla teew yónent teew dafa xam nga yow bokkuñu ba affaire ana jëli suma sëkkër yi yónent day teew loolu dañ ko wax rek pour nag maanaam kii la wax la rek lu kii waaye nag au fond yàlla teew ndax ma ngi ko commencé fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfuruni waaw yow nga ne laa ilaha illa allahu déggoo kaw lu bi yëpp di bëmb ñu naan joom faal ade du noonu tudd bi du noonu maa la fi ba man kenn fi nekkoon yow ñoo ngi fi maa la fi indi c'est ça yow sax yaay kan kon nag tafiru ilallahi ñun ñu jaar ci fu ne waaye nag jaar nañ ci toog gannaaw buñ jullee te nag suñu wasifa wi dafa am affaire ndaxte nit mun naa ñàkk pexe tiim waaye boo ko seetlu woon ñi fii tiim bëriwuñ de benn waas nee na ma ci Dakar ñu daje ñu ñu liqaam rek ñëpp jóg waaye jëm alhamdulilah rabbil ma ne ko mu ne xool nga ne mbooloo mi yëpp ndekki njàpp lañ fi indiwaale ma ne ko yaru Seydina Cheikh la grand kii grande mosquée fees dell jigéen ñi fees dell bañ kabare ñëpp kabar xam nit ñi dañ ñëw indi njàpp yow ñu jàpp bañ toogee nag xoolal mécanisme maa ko waxee noonu rek mécanisme rabbaan yi bii nekk ci wirdo ak wasifa benn la xam nga mënu loo lekk ci restaurant te duggoo xanaa ci biir te dafa am kuy aaye buntu zikr mi ngi ci buntu bi ba nga audu billahi min shaytan rajim iblis daw na amatul léegi nga ne calax bismillahi rahmaani rahim yaa ngi ubbi nga fatiha fatiha fatxu ubbi na fatiha moo ubbi alquran mooy ubbi lépp waaye nag li nga indiwaale yàlla moom xam na ko te pay ba nga jëm pay bu ne am na lu muy bañ boo astaghfirullah sangu nga fomp nga solu nga parfumé nga allahumma salli fa nga jëm kuñ ommatut doo fa dugg nga jaar ci ki nga xam ne moom mooy ki yàlla ne woon bu jaaroon fu ne jógee fotti bu ne bu njaaru ci yow duñ dugg kon sangu nga ba solu ba parfumé wu ñëw nga ci kila mun a ommat salaatu ala nabi nga bàkk ko ba ca fam gën a kowee xaqa qadri yi miqdaar yàlla rek koo xam mu ne la ha antum rabbuka ne laa ilaha illa allah moom rek moom mécanisme bi yëpp coow li yëpp ñi ngi jëm ci laa ilaha illa allahu te ñi ngi jëm ci laahu boo ko defee ci wa- wasifa ci wirdo noonu la soo ko defee ci wasifa ba nga tuddee yàlla léegi nag yàlla moo la ebalaat ci yonent bi parce que yow boo fa yàggee dafay doy waar il faut nga ñëw ci yonent bi jaar nga fa mu waxtaan ak yow ci saal bi nga jaar ci yàlla léegi nag mu daaloo la ci moom mu dugal nag ci cabinet yi mu talsam ku mën a firi mu talsam ma rës ma rës mbir la mu réy réy réy réy moo tax yii Seydina Cheikh wax na ko ci benn nee na jàpp wirdo wi maanaam gëm ne rek gëm ko rek ne lii lu sérieux la wilaaya la wilaaya la maanaam tijaan nga waliyu nga mën na am ci beneen tarixa noonu la de waa xam kenn mënta am temps wu jàng tarixa yépp wante foo dem mu am laa ilaha illallah rek mun nga fa wax loolu laa ilaha illallah moom mooy laa ilaha illallah nga dellu si ci jawharatul kamal Seydina Cheikh nee na ñaareel ba wasifa yi ngay gis nee na agglomération bu ñu koy jàng rek assurance la pour ñoom yéeg nañ ko ou yéeguñ ko kii toog kii toog ñu janoo kartuñ xulowuñ léebuñ waxuñ caaxaan xanaa ñu ngi ci yàlla ak yonent bi ñoom ñëpp ku ci ne xool nga ko xool sa morom passeport la pour ngërmaal yàlla ak aljanna et quotidiennement bés bu set wasifa nag yiñ ciy wax yépp moom mooy yi ñu wax waaye Seydina Cheikh nag taxaw na benn bis nañu bu nit ñi xamoon li ci wasifa kon boo xamee ne pour ñu ñëw ci foog ñu raam sax foog ñu raam waaye foog ñëw sax ñàkk caa ñëw dara jóg xam nga yonent yàlla Daawuda lu intéressant la daf daan déyanteeg boromam rek neex baat lool ne yàlla bés boo ma gisee may romb ñuy sikkar dem feneen bu ma déparé dem feneen damal sama tànk yi daawuda kon nag a dikru xéewal gu ko gën a mag amul te wirdo woo dégg dikru la wasifa woo dégg dikru la bésu ajuma nag dajale yii benn ba mooy yonentu la yàlla xamal ruq yi nee na bés yëpp moo ci gën nee na am na ci waxtu woo xam ne jaam bu mu fekk ngay ñaan yàlla ngay julli di ñaan yàlla loola nga koy ñaan mu may la ko waxtu wi nag ñu ne ban la ñu ne buñ no de zawal ñu ne bu imam bi yéegi min ba yi ne fekk ba ñuy jullee ñii ne ñii ne Seydina Cheikh li mu gëm moom mooy mooy waxtu yu mujj ci àjjuma une heure avant mooy waxtu xëyla la xadra moo jaaluy xadra xam nga xadara baatu arab la mi ngi jógee ci xadara yaxduru xuduran il est présent mi ngi fi kon nag xadaratu mooy proximité boo doon làkk tubaab jege teew boo tax aarifin yëpp d'accord nañ ci ne teew ak péeb yàlla bi ñuy wax kat du looy dugg avion di dem jóge ci sàggan ñëw ci teewlu rek la ndax yaa fàddu moom fàdduwul yaa fàddu waaye moom fàdduwul da nga de te mu ne ca ngoon googa nag maanaam loolee ca des si na Cheikh mu des benn tontu yonentu daf ne ku mu fekk ngay ñaan ngay julli ñaan te waxtu woo du waxtu julli ma laaj ko Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu ne mu ne waaw xadis ba daf ne antum fi salaati man tadartumuha boo toggee ci jàkk wala jumaa ji xaar ñu nodd pour nga julli yaa ngi ci jullee gum kon nag julli googu la yonent yi junj yaa nga nekk ci laa ilaaha illallaahu seetlu rek gaay buñ ci nekkee est-ce que am na sax ci mbokk yoo xam ne buñ demee ba tàgg ci laa ilaaha illallaahu dañuy tox ci allah allah allah jant bi ne meng ñu ne meng ci yàlla bu leen neexee bu leen naqaree est-ce que